KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wóor te leer. jàkkaarloog aas na la jàkkaarloog Tiwaawan ni mu jàkkaarloog yeneen be na la jàkkaarloog Seex ni mu jàkkaarloog Seex na la jàkkaarloog aas ni mu jàkkaarloog aas na la jàkkaarloog yee. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wóor te leer